mbokk Samagal TV mbokk internet yi beneen numéro sama espoir mi ngi nii nag espoir bi nag dañ ko jëlee tey ci foiru Alert bi mu nekk jeune maa boo xam ni tey kilifa gi mo wax jeune mo bi kan gaa ziar naa la. waaw delloo ziar bu baax. ku ma ban jeune kii mooy Marley. Marley ñaata mu waaw Marley six mois et demi. six mois et demi. waaw ah, six mois et demi kii moom ci ñun la juddoo. ah ko mu nekk wan biir mu nekk Bergerie di Bawol. fu mu nek Ndangal ma di Bawol Ndangal ma. sama espoir bi ñu war ko dugal tey fii ci Samagal TV mu am 6 mois fekk 6 mois jëm at dañuy ñëw setsiwaat ko ko setwaatee nag bëgg ko fekk ci ay anam bu jéem a xool pour euh, la toll ci ay croissance am est-ce que xam ngeen ni lu lu ngeen war a waaj la. waa incha allah bu demee nañ ci gën a góorlu moom moom bu am yaakaar la. te it euh, ay grand éleveur nee nañu champion lay doon ñu tey ko. incha allah waaw bu incha allah dinañ leen waajal bu baax a baax. bu ngeen seen xol na sedd moom papaam doomu Riib la yaayam doomu surtout surtout booy tukulóor waaw. yaayam anam. yaayam moo nekk ne mooy taawam. mooy taawam waaw. mooy noir blanc bi. mooy noir blanc bi waaw. mooy euh, taawam. bi mooy taawam waaw. instant bi est-ce que na ko moom. na nag. waaw waaw sori na nii xool leen ko bu baax mu défilé ngeen xamee ko. ñu waaj nag war ko seet nag nangal ma foog ñu dem nangal ma xool élevage nangal ma nu mu fa demee ak nan la fa tëddee bu ko defee ñu dem yaatal foofu def émission bis bi amaat euh, fii ak 6 mois xam naa dina dina dina dugg nekk jeune mâle wala sax parce que 6 mois bu ñu toogee ba yeneen 6 wala 8 mois day nekk 14 jëm 15 mois yàlla nañ fi yàlla bàyyi boobu ñu seeti ko. xool fan la jëm euh, sunu espoir bi Marley. gaa yi kontaan nañ. waaw ñoo la gën a kontaan. jaajëf baax na.